mbokk yi ëpp na at ci ginnaaw lañu falu fii ci mairie de Dakar man dañ ma fal ci li tubaab di wooye suffrage universel direct mooy daanaka askanu Dakar ñoom ñoo ma fal man nag lu ma jàppoon mooy man nuñ ma falee ak nu ñu naree falee membre du bureau municipal yi bokkul du même mode scrutin donc man du ma gëmoon mooy man su ma nekkee maire kuy topp ci man mën na nekk góor wala mën na nekk jigéen comme ñun dañu bokkoon suñu coalition Yewwi Askan Wi ñu àndoon ci ak waa PASTEF ñu ne ak ah, premier adjoint bi nañ ko jox waa PASTEF kon premier adjoint boobu ñu doxale ko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 composition à travers élection du bureau municipal ma bëgg wax ji nag leer du nomination parce que dafa am fii ñu bëgg a gëmloo askan wi que Barthélémy Diaz dafa jël bic ak feuille di tànn ku ko pouvoir boobu man aw ma ko élection la woon lu tax ma ne ñëw waxtaan ak mbokk yi parce que coalition Yewwi Askan Wi